jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. dal leen jàmm mbokku not yu 5M TV Sénégal ci seen chaîne bile xibaar yi dañuy àddu kon lu ñeel jëm rekk ci wàllu électoral ak i tamit liberté jëm ci ñi nga xam ni kon dañ leen denc rek ci kaso bile mu mel ni kon F24 moom mi ngi rek daal di wax jëm ci njiitu réew mi Macky sàll mile dimanche bi ñu daal di génn jëm rek ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ginnaaw googe bokk na ci nag lu jëm ci ay dogal yi nga xam ni tey tey jilee eh, taxawee nañ ko ginnaaw rek lël boobee nga xam ni kon amaloon nañ ko vingt 24 kon la mu jël ci ay dogal bokk na ci fi mu nekk ni ñu rekk daal di gën a saytu lu ñeel processus électoral bi maanaam élection yi nan la war a doxee file ci Sénégal ginnaaw googee liñ ci sàkku bokk na mu am ci dal ak itamit tey ginnaaw gi itam ñu rekk boole ci képp koo xam ni candidat la mouvement bile ba tey kon di wéyal xeexam jëm rek ci libération loole képp koo xam ni politique moo waral ñu daal di lay tëj ñu génne la ak i tamit campagne nationale ak i internationale yi nga xam ni war nañ ko amal ci adduna war ngal këpp ginnaaw situation démocratique bi nga xam ni kon yeneen i réew yi war nañ cee mën a dugal seen loxo leneen yi itam bokk na ci jàpp bi nga xam ni jàpp nañ ko Alioune Sané nekk coordonnateur bu mouvement Y'en a marre bilee ginnaaw kon delluwaatam eh, ci kaso bi ñu daal di koy ñawlu bu baax a baax jëm itam ci nguur gi nu muy doxalee ñu àddu itam waxaat ci leneen loo xam ne gis nañ ko mu nekk ci membre yi nga xam ne kon ñu ngi koy daal di fàttali muy teewaayu kile di Cheikh Omar Diagne ak Ousmane Sonko ñoomee nga xam ni kon ñu jàpp ne ay candidat lañu rek ñu bokk eh, ci jongante falum njiitum réew ginnaaw kon mouvement ak membre bu F24 bi ñoom kon sàkku nañu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi jamono jii ñu daal di leen di bàyyi waaye itam rek daal di fësal lépp loo xam ni kon manifestation la ñu bàyyi kon ñu koy amal ndax ajuma jile ñu daal di génn kon ñoom bëggoon nañu amal li ñu mel waaye dañ koo gàntal waaye itam àdduna ñu kon jëm ci kuréel bi saytu wàllu élection yi ginnaaw bi ñu gàntalee Ousmane Sonko kon ñu ni turam nekkul ci liste bi kon du am lu ñel wàllu parrainage yi loole itam ñaawlu nañ ko bu baax a baax ca noonu itam ñoo ngi fësal ginnaaw ci communiqué bi ñu xaatim ni njiitu réew mi Macky Sall kon bu mu fàtte li nga xam ni moo war a gën a fës ci Sénégal fi mu nekk nii mooy ñu daal di rek continuité maanaam rek li nga xam ni moo fi am ñu daal di koy soppi. daal di wéyal itam li gën ci réew mi ndax loole moo tax nag ñuy xeex li nga xam ni kon loolu ausman Sonko daal di bëgg.